jërëjëf écho de la banlieue ni leen ko doon waxee sànq mooy tiis wi dal ci waa Pikine ak euh, génn àdduna Samba Sarr moom nag euh, du woon rek dirigeant football ndax ci wàllu social xamoon nañ ko ci ndax rawatina wàllu wér-gu-yaram euh, hôpital ba gën a mag ci Pikine di Dominique moom dafa doon liggéeyee di jëf-jëf ju baax yoo xamante ni ba tax na kon askan ba ñu ngi ci tiis ñu ànd ceeg Abi Fay laata ñuy ñëw ci jàngat bi. ay jaar-jaaram ay nawleem rafetlu nañu ko bu baax. kenn koo xamante ni liñ ci moom mooy la richesse des débats il fait partie des rares ci ab coow ci la dëddoo crise moom Samba Amadou Sarr nekk koo xam ne ci Pikine ñëpp xam nañ ko yàgg sonn ndax goxam rawatina itam ca ASC cosaan ga mu ne sàmba Amadou Sarr nekk conseiller municipal ci pikin west moom ay jaar-jaaram ay nawleem rafetlu nañu ko bu baax. koo xamante ni liñ mën jàpp ci moom mooy la richesse des débats il fait partie des rares conseils municipaux yoo xam ni ñun dañuy yàkkamti mu ñëw conseil municipal. vu niveau bi muy yéegal débat bi aussi son intelligence mais aussi sa disponibilité. mu doon koo xam ne ku yàgg xeex la ngir askanam te it benn yoon ku tuutali doomu aadama. Samba côté social ñëpp naw nañ jëfam. beaucoup de génération formé leen ci xam-xamu d'abord lan mooy nawet formé leen ci am fitu def nawetaan mais formé leen aussi ci xam li ñu bëgg ak xam li ñu téye muy le club. le mythique club xam mooy la mooy koo xamante ne mooy jël dépense su këram abbu ko jabaram dem jox ko nit mu dépensé ko dafa ko mën ba noppi xaar yàlla. Samba Sarr dëddu waaye la mu fi bàyyi ci ginnaawam doon lu rafet rawatina itam centre Baye Talla Diop nekk ex Dominique doon na koo xam ne bokk na ci ña koy yeesalaat. Samba ci at yu gàtt la ko jël bu njëkk Pikine amul kenn ku daan am xel wala xalaat ni man maa ngi dem Dominique faju ji mais Samba bi mu ko jëlee ak équipe bi mu àndal tey ci tey ak commune bi yóbbu na Dominique foo xam ne tey képp ku jaaxle ci wàllu wér-gu-yaram muy wàllu ophtalmo dentiste muy césarienne Samba dafa changé Dominique ba nga xam ne tey niveau bi mu eggoon niveau bi mu nekk romb na ko. Samba Sarr ci la gane si àdduna tey askanu pekin jóg ngir rendre ko hommage gannaaw ba nga xam ne jàpp nañ ne sax ca toolu xare la daanoo moom Samba Amadou Sarr nekk agent municipal yor itam district sanitaire bu Dominique nekk pionnier ASC Cosaan ba it trophée bu ne jël na ko foofee fas yéene koo denc. ci sëg ya nga xamante ni bokk na ca ña doon xeex ñu yokk ko. jërëjëf Habib moom Samba Amadou Sarr moom tey bu tàkkusaan jotee lañ koy jébbal borom ci sëg yi nekk ci Pikine wax nga ko sànq ak témoignage yi mu mel ni kon am na taxawaay bu mu doon taxaw ci diwaan ba. waaw kay Chérif nga baal ma ma nuyuwaat waa Pikine waa banlieue bi euh, ñëpp tamit di di leen ma saw ndax tamit lii ab tiis la euh, mu nekk ñàkk goo xamante nit waa Pikine ñoom ñëpp ñoo ñàkk. un grand homme comme on dit mu nekk Samba Sarr doon na un nacteur tamit de développement tey anam yi nga xamante nit génnee na ko àdduna du woon loo xamante nit yéene woon nañu ko ko vu tamit li nga xamante nit liggéey na ko ci biir gox bi euh, sur le plan développement ñu xam ne nit la bu bàyyi woon lépp la nga xamante nit ay yitteem la woon jagleel ko li nga xam ne moom moo doomu aadama jagleel ko itam li nga xam ne moo di gox bi euh, di Pikine ba tax na boo seetee tamit euh, district euh, bu Pikine il y moins de trois ans lañ ko ko jox moom mu organiser ko ak benn comité boo xam ne bu njëkkaan da ngay gis ne sax amuloon kenn ku am sañ-sañ wala fit ne yaa ngi dem euh, district bu Dominique ne da nga fay fajoo boo waxee ñu ne la foofu dara baaxul mais grâce à lui ak comité bi nga xamante ni teg na ko tey alhamdulilah ba Dominique euh, nit ñi ñi ngi koy commencé waat ñemewaat ba tax na tamit euh, doon na loo xam ne tey boo boo heure boo mënoon woo jëmm ji tey dina la wuyu daaw bu ñu seetee tamit ci biir. mbas mi li mu metti metti li li ñu nekk Pikine yëpp ñoon ñun ñoo doon ànd guddi gi ak kaay dem di recenser di indiwaat lépp mu nekkoon koo xamante ni tamit euh, ku amoon Pastef la tamit euh, ci askanu pikin jaaw vraiment euh, c'est malheureux genre nit ñu mel nii soo xoolee maanaam ñëpp lañuy ñuy bokkal quoi parce que dañuy social nekk ci mouvement bi di dox ci yitte mm-hmm. nit ñi je pense que suñ demee soo ko ñàkkee Euh, day mel ni sa ki nga bokkal sa waa famille moom mu génn àdduna moo tax euh, ça fait toujours mal on regrette quand même ci situation yi nga xamee ni euh, noonu la amee mais bon je pense que yàlla def na li gën mais population Pikine tamit surtout mouvement sport bi war nañu def en sorte que. que mu éternel. Mhm. buñ ko fàtte loolu sax tax na démb boo seetee euh, tard dans la nuit amal nañ une réunion pour xool tey obsèques yi. nan lañ koy euh, organiser ba tax na moo door bi ñu joxee di ko ñaan waa Pikine mooy ku ci nekk tey bu ñuy gunge ji Samba Sarr nañ def rouge blanc mu nekk couleur boo xam ne tamit couleur bu mu yàgg fonk la nekk couleur ASC cosaan bi nga xam ne tey moom moo tax mm, euh, mu gën a génn àdduna tey moom moo jiitoon mm, mm. club boobu. très grande ASC la ASC cosaan avec 19 trophées zonales tamit euh, mu nekk ASC boo xam ni du ASC tamit bu ndaw euh, sur le plan sportif tamit moom cosaan moo nekkoon club de cœur am mais équipe bu Pikine yëpp moo ko taxoon jóg ndax boo seetee tamit amul benn ASC boo xamante ne nii tey yaa ngi ci département bi rendre hommage ki nga xam ne moom moo di euh, Samba Sarr ci consensus bi tamit Chérif ñu ci bëri dañuy yaakaaroon ne moom dafa xawoon jàmmaar da doon jàmmaarloo ak Augustin Senghor tey ñu ko leeral ndax man à 17h33 minutes la ma woo le même jour euh, avant 19h Samba Sarr génn àdduna tey li mu bëggoon mooy dafa bëggoon wax. moom aussi tamit point de vue am dafa ne dañu am suñu point de vue tey dañu ko dañ ko bëgg a wax mais tey ñu ngi nii tegal ñu fi ay vigile ne duñu dugg ci biir complex bi mais loolu duñu ko nangu. mu nekk kàddu yoo xam ne tey mujjee na wax ak man mu doon loo xam ne tamit deegu bette la certes mm. parce que dee buy tàggoo sax yaakaar naa ni amul waaye tamit ci circonstances yi tamit dafay xaw a metti mm. ndax euh, moom aussi tamit àdduna même biir Pikine boo seetee li mu yàgg prôné moom mooy le consensus mm. du amul xeex amul xuloo ba tax na tamit da ngay gis ñaari ASC bu ñuy xeex moom ci boppam moom mooy yor son bâton de pèlerin ba nga xamante ni tey jàmm dafay dellu non boo taxaw ci image yi ngay ñuy wanewaat ne ci complexe bi jàppante bi mm-hmm. ñu doon wax sànq ci ëppal maanaam ñu xaw ku joxe ordre pour empêcher ko mu dugg mais def na lu ëpp parce que complexe bi dèjà na rëy goo xamante tere na mu dugg fa rek lu garaaw la parce que du rek ob siège ODCAV moo fa nekk yow yaa ngi fa yaa dèjà rajo communautaire premier rajo communautaire oxygène fa la nekk mhm. amoon na centre d' civil am na yeneen barab yoo xam nit ku nekk même école euh, sourds-muets yi fa la nekk waaw nga yow nga taxaw responsabilité enquête bi sax nañ ko ah, parce que tamit euh, police ibbi na ci ab l'enquête ngir euh, mën a déterminer aussi tamit euh, les faits ci information yi nga xamante nit am nañ ko ndax boo seetee depuis samedi ba léegi nii tamit force de l'ordre ñu ngi foofu noonu taxaw di surveiller parce que boo seetee ba léegi siège ODCAV bi dañ ko saccagé yàq ko lépp ba tax na tey jëm nañ jot tamit ki jiitee jiite ODCAV di Amadou si ñu koy woowee Boy si mais malheureusement mujj ñu ko woon jot au téléphone xam naa circonstance bi nu mu mel moom tamit euh, ba mënut wuy mais am na tamit ñu ko ci jiiñ euh, joxañ ba tuuma ne moom moo euh, santaane ngir ñu garde complexe bi mais je dirais que vigiles yi ñoom ils sont légitimes tamit parce que ci complexe bi la ñuy liggéey ay agent agents municipaux lañ yoo xam ne ñoom ñoo yor sécurité complexe bi mais ci fait bi nii lan moo waral loolu ci ODCAV lii yilifu leen

ville de Pikine moom moo leen yilif mais malheureusement tamit mënuñu woon euh, jot agent de sécurité yi jëm nañ leen woo tamit. Mm-hmm. Euh, bëgguñu ci ñoom tamit euh, yéey yàbbi mais xam naa ni tamit ak police enquête bi nga. xamante ni parce que ñu doon wane sànq Pape Samba di convocation c'est une convocation groupée ni moom waaw mooy lii le 29 la date convocation bi mooy ñoom ñi nga xamante ni kon ñoom ñoo teewal. jiite ay association boo xam convocation groupée la moom il est en tant que président de l'ASC Cosaan moo ko may kon mu mën a teewal clubam ca ca ndaje moom mu bañ a dugg kooku tamit euh, ku jaata déglu la xool lan la ci jublu woon ak yu ni mel et puis je pense que du intéressant Augustin Senghor mi nga xamante ni kon mu ngoon ca ndaje ma xëy na moom mën na bañ a yëg li xew parce que c'est au niveau local d'abord je pense que c'est différent là parce que ni nga waxee noonu la moom la ko taxoon jóg mooy mu ñëw wax problème parce que il dirige quand même euh, club <coughs> moom xam na jafe déglu mu wax la seen ses problèmes. malheureusement gis nga ko noonu donc ñi ci suuf moom en tant que président ASC Cosaan ñi ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xale ko aljana résultat autopsie bi comme ça fii laa di je pense que ci reportage bi nga def démb ci journal bi dinañ ko xam lan moo lan moo. autopsie bi sax nee nañ euh, génn na euh, parce que tamit euh, li ñu li ñu mujjee wax dañu ne excès d'émotion la. loolu ñu mujjee wax ne loolu moom mooy li nga xamante ni mooy cause bi ko génnee àdduna ndax tamit boo seetee moom après bi mu. excès d'émotion crise cardiaque crise cardiaque effectivement ndax tamit euh, bi mu jógee fële rek automatiquement dafa dem këram bi mu demee këram ci la piqué crise bi ñu yóbbu Dominique yàlla def li gën. Hmm, yal ko yàlla yërëm xale ko aljanna. amiin ci ay leçons parce que fi ñu jëm jaa wax na ko le 7 pour daal di am association wala assemblée générale. Euh, bu fédération sénégalaise bu football donc ñaari candidat yi muy Madi Touré ak Augustin Senghor ñoo ko nar a xëccoo ah ñu espérer que ni kon fitna gi dina fi yam et puis lii aussi ñu leeral ko mbokk yi su nga daax loolu rek ñu daal di tënk li gën a fës ci yenn laa laata ñuy demee RFM